alaaji Ismaïla Ndiaye baayam alaaji maam boobu Ndiaye baayam tubaar fakàlla macha allah Ousseynou Ndiaye maamam Biram Wula Jaañ ak Fatma Wula Jaañ lan Fuloor Wula Jaañ yaaya ndaw mu Demba Seen aji bàjjen fay nag mooy yaaya mbas ndeene jigéen ak jogoy ndeene jigéen masambay ndeene jigéen a Tafa Ndiaye nooy nuyoo man xan loo Fuloor Demba Seen ndaw Demba Seen Biram Wula Ndiaye ak sëñ la diggéen Wula Ndiaye xëy suba di taalal loxo nit si ñàkk jom la bokk so suma yaay dafa ngay mburo mburu li ba suma yaay mom daan kat dooleem la won mom yu bar la def dafa ngay ice tamit bi jamee frig suma xol li ah. fi mu toll xiyu gambia naa la wax dara diplomatic passport businessman man la ko yaa ni ka jox 1998 ma lima nek suma sama xel ak lima ma bëgg liggéey ak suma ma tollu gambe bu ma koo may deme ndaw do ko jox liggéey do ko jël employé ko waaye da create environment boo xam ne dafa mun a liggéey business tigi tigi tigi da nga am fit loolu la ragal waaye nag si njub man yaaya jàmme rek laa ragaloon moo tax dama ko daan bàyyi xel dama ko daan study comme ni ñoo story book nga sëriñ ñu bari ñoo wooyee sëriñ yi lobbyist lañ sëriñ yi téléphone lañ te man bëgg naa boobu tànk mangi ngi mu mënu maa jot dama ne noppil coono jeex joy jooy frustration na ma jeex na ak Afrique Financial Service coono jeex na dugal si biir smile bu bari amuloo benn kiw ay smile eesi bu mu sëkk sa body kon nag kan baa na xaaral ma tëraay Afia rek ñu ngi fii Gambia si 33 branches si biir réew Gambia ñu ngi fa am suñu place koo na Afia mu ngi transfert ñu ngi lëkkaloo nag ak transfert boo mën a am si foo ko ak ku la ko mën a Afia ñu jox la ko weccum xaalis dawal ba mu jeex kon nag mbokk yi xool leen ñu si suñu mbete yi 20381 ñun nag ñu ngi fi nga xam ne mooy pipeline mos bi opposite am foofu la ñu nekk ak Afia seen jaale jéema ngekonta abaraka abaraka membe kerim babu wolom aka kenu nyameng niko aka kenu nyameng adol be nyadile parce ce que niya moy ko aɗonen cosano ka hada maddigole signifa itemu jumale ite bota jumalle bala wol fanal bota jumalle fanal bala ñina dekkil sa aada ak ake ko nun ñaami num na amee dëmm babu ko ni dinni ngo jibe e ko akalon ko yemmen fo xama sa aada sa cosan moo tax Gambian Talents TV ak Ibou ak Babou ñu toog ñu ne ñu fokk ñu dunda sun aada tuntu alfal kela din mbayali ke kuluno ñaadile ke kulu fo buuteerolon bang i ka le domorole la ban foy ka mun felle la ñin programme le biwo be sene andi la kon kene ku nega bo buke xam sa adresse to fu nga baye ko samma fu nga baye ko nun to alfa lu ila sunkurun ndi woni ke pare nyaadile ila dum fengol fanal be nyaadile ko mun dum fen sifal le fanal dum ñin programme le fanal be o yitandila nena lan ko wati sa ande anu wodam nga fekk fofam tel dindi mankaje ke ka julo siti yiro balay ka fo finja julo gay ko be siring e be kuma jijala kumol bitay e do taarikool fu la dindingol yi lu doon am démba lu tax amatu tey la moo tax topp suñ nasaraan fàtte suñu aada ak cosaan ake kennu ñaameng aada ak cosaan ake kennu ñaameng toppa lañu alxames bu jot juróomi waxtu ba juróom ñaari waxtu fan la mooy amee si Gambian Talents TV Ibou la ak Babou TV GTTV reto yaala jang mbe damen to teng wolem um, magistrate ko timmi alon ko woleme banjol kono ngalo ne ko um, kumanto ma kanko sembo warata banko kan nembe keren no wolem commin ya fo nyamen tumiro lata uh, boubacar keta kunto mi alon ko jamal ka faye bob keta tumiro lata kunto kaje ko a tele uh, a kono mandiro ke a, a, a, a, ala muso ala ex muso wala ala muso men no futo tala, futo bante tema wo doma a tele o kono ma so wonata ke rape case ti rape case ni nak ate bo wala kono sanji fula komanto ate tamu woltu bari bi ate la case be continue la damen kadon case nying ya ajon le 33 times so bi be kala 30 so wobe kala high court of the uh, high, high court of banjul wobe kala wolto so be damen to right now te nyindo mu uh, magistrate court le afanan banjul le kono bari uh, birim bob la case be taka havumi bokar keta ala case be takan on the 7 july uh, banko e oda di kaje ko uh, ala kaje ko dindingo min ya tumi ko adingolem kadunko ay répliqué wo dindigo ñing banko oda e eh, koti oda di ko inyantaka dindingo nyi yalo tale ka jube fo ate bubakar keta nyi fa dingol en fa dingon teng annon fanan inyantaka mo fanan jubele men sunkudindingo mi yalon ko iko ay wala kono ma wala ma emirre a uh, fanan yalo nyantaka jubele ka juke nyi mo fulol jumale dingo mu wo dindingo ti so dat ase lonno jumale repke bari tumiro nyi be denning abubakar keta le kunto nyi tembola bari kes nyi futata tembo to mi yalon ko uh, dindingo mi yalon ko wala yalo nyantaka jube ka lonko jumale dimmu wo dindingo nyi nata Mustafa dindi wo ñiŋ fata ñaadile according to reports nga meŋ moy nga meŋ moy uh, wolem ko dindiŋo ñiŋ uh, senabu foŋo la audio nga meŋ moy uh, personally wolem ko dindiŋo ñiŋ according to senabu ate foŋo ye meŋ fo wolem dindiŋo ñiŋ inyina tala moto konole ayamira ala broda soro wolle ni dinni ngotata uh, wol yamira atele ni dinni ngotata dinni ngoni inyina tumanno wato min nebe bagas pakola so dinni ngoni tuta moto kono kabrin salfana wato la kana fulan wato la uh, o hani keba ni o uh, ata febo o kamala dinni ngona fa because bundal be soron dinne moto la kando nyi manna febo ba dinni ngoni mam fawo noto bri ya bondi watare uh, already dinni ngoni asembo talata uh, ala nijo fon kitabul problemo ya samba uh, clinico to from clinique inata samba banjul banjul e eh, nata je ko koɓeta kan ñatole ya bonde je ya samba uh, eh, kata samba sénégal pour kata jara but report ol mol kam min fo wolem ko yalo min bota sen e eh, yalo min ya ta dindi bala yalo min tatale before only seven court la order di watu before wo yalo yin tata bala woto kammala uh, ah, a teñin keta la lawyer min keta uh, ls kamarati ako itel manta wo tala uh, imanta wo tala at all ako imanta wotala atol uh, katunko kiyaloñin tatale jannin kodɓe oda dila aɗum biraɓe tala fanan uh, eh, mo seeɗo mantere je mi yalon ko walla be lori ateñin abubakar keta uh, eh, toyala woto dindigol fanan na fañi min natake wala fan fam probléme oti uh, jangñin tembola ntel ɓe men fintindi kan jang walem dindigola karola anin senabola karola walem banjul eh, magistrate court wala ɓen komaten ñin tembolan ɓe wolto kaɗum ɓe sobirin ko kamen moy wala ko keñin kes ñin ase keno aɓe kela jande bari ma confirm 100 bari ni ga confirm fanan bal kala mum tanni lalale annum fanan alba lonnale woto dinnoñin men fata inataje ko dinnoñin na fañañin a kawa kuya batale woto wo kammala kisikisiro ñanta ka kele katun ko diamo siyata mole safirol ke diamol siyata kumandiro siyata uh, eh, woto policiol fanan nataje ko inata press release o bonni kaje ko dinniwo ñin nafa iba kis kiskisilale ka gambiyanol promise ko iba kiskisilale annun ni ye momo muta ko wala dindiwo nyin o bulobe dindiwo nyin na fa kono le woto o mari ibe yaro lale kanne coming luwa ya fo nyamin woto o inataje ko nyin ko nyin ate wonyama ate senabu min birindino fata abe uh, abe Senegal ate abe Senegal ate ndino be Senegal je fongole o kamala Gambia police through the IGP in Interpol Senegal inataje ko kaje ko ka senabu ka mutaje to kala koldera ka topoto o kammala ya di gammela police la mi ya lon ko wolle ni senabu nata jang uh, ina ɗum ta gambia kono jang uh, eh, uh, eh, arjuma lungo sutola bari tumiro men lata fanan kunto uh, uh, uh, criminal offense lem kadun ko mofa ni ni tono taw kono donon oto do kole moto kamala bira nata nan anata police station oto janne banjul police station mi alon ko a felen bala jang ay la janne ay e, adumo la banjul police station oto janne annon anata na sibito fanalla ay dimaso fanalla janne oto bi mu tenen wala ti woto bi a ate sena mu anyanta bola janne kana kiti ola a anu wana ala broda sol min yalon ko wala fanan to fota audio kono nga wala to moy wala kebili धम्बेले भाई atare e bel dinu wala bare o bel ñing wala eh, natana kana o bel tiñale ye fana mutale ko tenke boto wo kamala senabu ye la janne lajanne woto ngo ate senabu la kes ñing añantana la kana lo kiti bu kitibi o ñatilin wala kana nan ala ala case ñing se continue kaje ko fo tumiro men lata fanan kunto fo to toñalen fo to toñanten eh, nga ñinne soto folo pour ka banque mole pour mol sa fahamuno bari in tembolambe banjul magistrate court le wala ban ko maten bari ma lon folo 100% fo senabu fo e bala kitiyo kela janne fo e ba sawla da ko ten to mawolon ngamel lon ah, mbe wala fokam oto mbal tentula mbal jet mbal our listeners uh, this is Sheriff Conte reporting for Gambian Talents TV as you all know, uh, there has been a lot of push and pull regarding Abubakar Keita's case and Senabu Mbai. Uh, Abubakar Keita's case has been happening uh, two years back. It gotten to a point that the state ordered for the child for the child, uh, the results of the alleged rape, that child, for that child's blood to be collected in order to check whether uh, Abubakar Keita is the owner of that child or the boyfriend of the lady is the owner of that child. So for that being a case, um, as state ordered that um, suddenly the child ended up being uh, died. What led to that is that uh, according to Senabu herself, the audio we received, Senabu forget uh, about the child inside the vehicle. He thought his brothers went with the child, and his brothers also uh, thought that Senabu also went with the child. As a result, the child was inside the vehicle um, from 2 o'clock to around 5 o'clock. As a result, um, uh, the things didn't go well with the child, and then they, uh, they ended up admitting the child at a local clinic, then transferred the child to uh, uh Banjul, RBTH here. But later on, as things uh, keeps on escalating, they transfer the child to uh, Senegal, where Senabu was with the child. But when the child passed away, um, people have have been complaining that there should be an investigation. As a result, police also wrote and um, wrote to assure the general public that they're going to investigate this matter. And whosoever is found wanting of doing that, uh, the person will face the law fully. And as a result, through the IGP, they talked to Interpol, uh, where Senabu was caught in Senegal, and then um, paper arrangements were done, and then they handed over Senabu to the uh, Gambia police. They came with Senabu here in the Gambia on Friday night, then transferred Senabu to uh, Banjul here, where we are right now. This is the headquarters, police headquarters, where Senabu was kept, and Senabu um, slept here on Friday on Saturday and on Sunday. Today is Monday. So the child, the, the child that passed away, uh, uh, was um, alleged that he involved um, in the passing away of that child. Oh, so for that being a case, Senabu should face the law. So today, on Monday, re the report we're receiving from people is that Senabu's case is going to happen at a uh, Banjul Magistrate Court. But we are not confirming that 100% as we didn't have a 100% clear source to uh, transfer to the general public. But what we are telling you is whatever is happening here, we will let you know. This is Government Maintenance TV. This is Sheriff Content reporting for you. And um, my colleague is here, uh, Bintu. Bintu will also try to, uh, Binta Baji will also try to translate some of the things, not everything, but some of the things I have just mentioned here. Thank you very much. Uh, Jerejef Sheriff, uh, mbokay ma len di man la Binta Badji comme ni ma leen ko waxee ah, tey nag ah, ñu ngi fi nga xamante ne moo nekk Banjul ah, Banjul nag ñu ngi fi nga xamante ne moo nekk si magistrate court bi si magistrate court bi nag tey dañ am dañ amoon information ne ki nga xamante ne moo nekk Senda Mumbai tey fii lay ñëwee def li nga xamante ne moo nekk am àtte bi tey fii lay amee ndaxte nekkoon na fi nga xamante ne moo nekk Sénégal Sénégal nag mu ñibbi si si bi nga xamante ne moo nekk si Friday bi si aljuma bi si guddi waaye nag IGP Gambia defoon na li nga xamante ne moo nekk gestuwaayam ak ñi nga xamante ne ñoo nekk Interpolice Sénégal euh, ñu def li nga xamante ne moo nekk paper arrangement pour Sainabou daal di ñibbisi euh, gannaaw bi nga xamante ne euh, rape case mu ngi am diggante ki nga xamante ne moo nekk Bob Keita ak ki nga xamante ne moo nekk ex waaye fi bopp eh, rakam ah, kooku lañ wax ne ah, daf ko réeb ah, réeb bi nag daal di génne ki nga xamante ne moo nekk xale boobu di bébi Mouhamed bébi Mouhamed nag yàlla def nag ñu nekkoon ci moto ji ki nga xamante ne moo nekk Seynabou Mbye si boppam wax ne moom dañ dañ fàtte ki nga xamante ne moo nekk bébi Mouhamed si biir moto googu la moto bi nga xamante ne amutoon ngelaw ba xale bi daal di suffoqué foofu noonu mënutoon a nokki ñu génne ko foofu noonu ros fi nga xamante ne moo nekk si clinique bi mu ko génne si clinique bi nag yóbbu ko ma si Banjul hospital bi ah, di Edward Francis Small ah, buñ ko fa génnee daal di ko yóbbu fi nga xamante ne moo nekk ah, Sénégal Sénégal nag mu nekkoon foofu ak ki nga xamante ne moo nekk Sainabou Mbye Sainabou Mbye na ba xale bi daal di a faatu foofu noonu le si Sénégal comme niñ ko déggee si <laughs> xibaar yi tey nag ki nga xamante ne moo na bu mbay dañ amu xibar ne fii lay amee li nga xamante ne moo nekk àtteem gannaaw moom tamit ñu ngi ko teg ah, baaraami tuuma ne ah, xale bi ah, nu mu dee dañ ko si war a amba yobu si luwa ñu xool naka la xale bi dee ndaxte xale bi nu mu dee ñu bëri ñu ngi wax ne dañ war a gestu ñu xool te xam naka la xale bi dee tey nag comme nuñ leen ko waxee woon rek amuñ hundred percent ne ah, fii lañ koo defee waaye dañ am li nga xamante ne moo nekk xibaar yu ñuy joxe ne fii la war a xewe waaye nag su fekkee ne fii lay xewe si Banjul ah, magistrate court bi neen lañ ko génneel fii live and direct si Gambia Talents TV ngeen daal di ko te tey ngeen gis ngeen xam tamit mbir mi naka la nekk di doxee fii si biir Banjul stay leen ci si Gambia Talents TV bu leen dem fen ñu génneel leen ko live and direct even some of the police ah, ñoo xamante ne fekk nañ gaay fii lacce nañ gaay waaye ñu ngi wax ne ne am na ku ñu wax ne sax kees bi du fi happen kees bi bundung la moo happen ah, bot ñun ñu continuer rek di lacce am na ñu wax ne ne tamit ah, likely dina fi happen bot amuñ fa information bu clair waaye xam nañ ne luñ xam mu leer ñu mooy Sainabou mu ngi si biir fii si biir headquarters bi fii a ngi fa si biir so kon nag ñu buñ dem fen ñu ñu ñu continuer rek di ñu déglu euh, ñu continuer rek di ñu seetaan tamit euh, comme que ñu ngi fi euh, whatever lu munti happen fii rek ñun dinañ fexe def suñ kemtalaay kattan ñu indil ñu indil ko nit ñi Gambia ni ñu happen nekkut ne nag lu jota happenut waaye lu happen rek dañ ko wa dañ ko jotali nit ñi mbaɗigol mbaltentula mbalde la mbafalale ko ten ke ɓe damen to ten wolem kal hakkilo guɗanɗi hani kabi ɓe ɗamen to ten wolem banjul magistrate court ɓe wole to banjul karat wala euh, high court oto aboubacar keita la case kela wole to ɓe to ten right now wala magistrate court ti euh, ga soto ga moy wolem ko tuman a seke senabou atala case ɓe kela jande bari comme ga men fo doron womanke kutimi lon ko a seneyatan male 100 percent bari 75 euh, percent wala nan lorin jang mantaɗo lato kaje ko katun ko sena bobe kono to janne bar na findita abe ta dame ma fongola mbalon nale nin janne mbalon nale butu na findita janga kungulo dulado ma fongola den nse fere oke ah, ngan kato ke ngabula noma abita dame to fo nsa fono mol ye uh, gambia no be mu me melbe banko kan fo gambia e bantala nsa fo ye membe kering ani seda bula case min ni min hapun taje nsa futandima uh, coming mfanan na uh, na responsibility abe nyamento oto be gambia no tentula be jela nyimu case le mi alon ko uh, binta li case la case bo hamantene uh, case bo am solo la pour ñu fatale ko nit ñi rek senabu daf don seyal uh, abubakar keta you understand um according to luñu dega um, ñaar yi nekkoon nañ ay around three years balaa ñuy sëy waaye buñ doon sëy nag um, uh, buñ doon sëy things were very okay waaye bu uh, sëy bi tasee uh, we not going too much into that you understand bu sëy bi tasee nag si la problème yi start problème yi start ba later on ñu accuse Aboubacar Keita ne moom moo biral doomi eh, moom moo biral Raki Senabu Mbye you understand so for that being a case mu mujjee nekka mu um, um, te rape allegations allegations la yi nga xamante ne dafa ah, dafa dafa dafa critical trop so for that being the case Boubacar Keita dafa nekkoon si kaso bi si remand wing bi mu ngi ci remand bi to two years I think some months ah, mu ngi fa mu ngi ñëw court di dem di ñëw ah, pour ñu fàttalikul nit ñi rek case bi mu ngi ajoon 33 times Boubacar Keita's case 33 times ñu ngi ko ajoon so today suñ ko ajoonee tey dafa nekk 34 times waaye Sainabou Mai keesam bi nii te moo nekk force one bi so moom moom bosam tey moo nekk force hearing bi ah, waaye ñu ngi wax public bi ne rek ah, am munti dégg fii nañ fexe ah, def suñ kentalaay kattan wax leen lu fi nekk continuer rek di euh, waaw comme nu mu leen ko waxee rek noonu la nekk di xapune fii si biir Banjul ndaxte euh, Gambian Talents TV ñun dañ taxawal askan bi ndax askan bi moo ñu ñor lu fi munti xapunte dañ leen ko génne live and direct ngeen gis ko fii si Gambian Talents TV ndax seena bu dina génn dem si trial bi ndax du génn dem si trial bi dinañ leen ko wanal ngeen gis ko fii si Gambian Talents TV waaye currently fi nga xamante ne moo nekk si high bi fii si Banjul nga xamante ne moo nekk Bob Keita ah, moo nekk di am foofu li nga xamante ne moo atteem tey ah, foofu noonu waxee woon rek thirty three times ñu ngi ajoon li nga xamante ne moo nekk uh, keesam bii le uh, di ajoon trial bi waaye tey nag suñ ko waree ajoon dina nekk uh, thirty four times waaye ki nga xamante ne moo nekk Sainabou Mbye tey moo nekk njëlbeen yoon bi nga xamante ne dafay dem taxaw ñu dem atte ko si li nga xamante ne moo nekk tuuma yuñ ko daal di teg si kawam waaye comme niñ leen ko waxee woon rek euh, fii ba léegi mu ngi amti euh, gisanguñ kenn ki nga xamante ne moo ñëw euh, pour taxawal ki nga mo ne moo nekk Sainabou Mbye wala ñu gis ki nga xamante ne sax moo nekk Sainabou Mbye si boppa génn si police high court bi fii si Banjul gannaaw bi nga xamante ne foofu la fanaane depuis àjjuma mu ngi fi fanaan si guddi samedi bi dimanche ba tey li nga xamante ne moo nekk lundi war a génn si ñëw si attekaay bi waaye ba léegi dégguñ dara koo laajte mu ne la xaw ma sax ndax fii leen ko defa wala defuñ ko fi ñeneen ñi sax ñu ne la a ah, xamuñ ci dara te ñoom ñëpp a ah, fii lañ nekk waaye comme niñ leen ko waxee woon rek Gambian Talents TV ñoo leen fi nekkal dañ leen koy génneel live and direct ngeen daal di ko gis ah, fii si Gambian Talents TV stay leen tune rek comme ni mu leen ko waxee woon case bi dafa nekk case boo xamante ne dafa critical rape case mu fi li nga xamante ne moo nekk Alleged murder moo fi nekk waaye nag comme ni ñu ko ko waxee rek ah, mu ngeen ñëw seetaane tamit si suñu gaay ñeneen ni ñu ngi fi nga xamante ne moo nekk si high court bi ñoom tam ñu ngi leen di génne li nga xamante ne moo nekk ab ah, bob case trial am boobu nekk di happen foofu noonu live and direct ah, ngeen seetaan ko ñun tamit ñu nekkal leen fi nga xamante ne moo nekk si magistrate court bi fii nii ñu xool nu mu fa munti yaaga rek a ñun askan bi moo ñu ñor dinañ toog fii nii ñu xool ndax ki nga xamantene mo moo nekk bu mbay dina ñëw fii nii ah, def li nga xamantene mo moo nekk ah, trial bi wala ah, date comme ni mu ko waxe woon rek time bi ten lañ waxoon waaye mu ngi ni am ten fifty ten minutes to 11 ba léegi dégguñ dara euh, gisuñ dara collecté mu ne la xaw ma si dara waaye nag ñun fii la ñoo toog xaar xaaraat ñu xool ndax dinañ am dara lu ñu leer ah, ndax duñ am lu ñu leer nag fii la ñoo toog xaar ak nga xamante ne moo nekk Sainabou Mbye fii si biir Banjul ma ne ko gis ngeen ko ba léegi gisuñ kenn kenn kenn ki nga xamante ne sax mbokkam la ku war a ñëw fii ni ah, daal di ko toggale si ah, code waaw lu ñoo def rek fu mu nekk nii ñu ngi gis nit ñaa ngi ñëw waaye mënuñoo différencier at this moment kan um, ay kan waaye ñu ngi gis nit ñaa ngi ñëw ndanka ndanka uh, moto yi ñu ngi paak fii fu mu nekk nii uh, moto yaa ngi paak waaye um, yaakaar nañ xëj um, na uh, du yaagaat Sainabou dina génn du yaagaat waaye lu ñëw def rek comme ko fu mu nekk nii nit ñaa ngi nit ñi bariwuñ noonu so dañoo stop life bi si kanam tuuti waaye ñu ngi leen a wax ne ne bu leen dem fende waaw every minute. dem leen ci Gambian Talents TV ngeen click foofu noonu ngeen seetaan because dañoo delluwaat ah, léegi léegi léegi du yàggaat ah, pour won leen everything loo xamante ne rek mu ngi happen fii nii dañ leen eh, nañ fexe ñu woon leen ko ah, si jamono jii nii fu mu ah, caméraman bi mu ngi leen a woon ah, main building yi police headquarters si jamono jii nii waaye ñu ngi leen a wax ne ne rek seen mbokk la woon Sheriff Konte di reporter Gambian Talents TV ak Binta Badji ñu ngi leen a wax ne bu leen dem fenn dañoo fexe rek indil leen mbaa mba ngol mbaa même kela doron mbe live stop la jam folo do man nin kadun ko mol man fintena bake ah, mbe sobirin hani kabi ko men jannem barin se men fono do ale dula men jenu jana wala eta so nyinti ah, banjul um, banjul ah, police head le nyinti nyinem police head fonti senabu be kono to janne wo koyta male bari amam fintena folo wato men fanan ngam men moy wo wato fanan sitale almost amunta wato nyin sitale fo abe tambi kan bari hani sai mom fenje folo bari men men folo ron mbe danna janne nyaat to ɗumanin doron min life live ko tenke fem keta jang ñin tembola ba futan dalma anu alba fahamula coming allafta ka a fahamu ala bara um, brim futata jang be jang ñamin um, nga be fo mo lelaɓe jan ñamin andun tembe da min to fana nga fole um, ñimmu kesleti mi yalon ko a keta bob keta tema anin senabu tema bari o mantre hapun kang o mantre ki kang bañul magistrate court ñin temboto ñin temboto be kekan uh, high court olto mi alon ko molbe olto right now bob la case be taka olto senabula case uh, nga mo, moy nu wolem ko abe kela janne uh, bañol magistrate court nga wala moy nu so so somandan nata janne a mol natale ngam modantal je janne mini alon ko loyal be dol konole yela mutolon di jang idunta uh, police headquarters idunta kono to findita bad jamal nata ta ko tenke uh, o kamala nata si ka wato batu ka je ko fu case nying fo bi abe kelale bi uh, fo ate kela bi uh, personally uh, ntata fo kono tole nga police prosecutor la office ntata je yerri fato uh, piaroya PR la office ndara je matare je ngakol akonye ko ata fon wala nye uh, wato mi ko nyin kes be kela wala fo uh, bila be fa be janne fa kela jang ako ato fon wala nye katun ko imam pare uh, ila investigation wala imam pare folo uh, nata boje murunta jang bari hani kabi uh, be tembo to uh, banjul magistrate court hani kabi fem manke uh, bari nyinin kar dantan ken lunda fanan kono to uh, ntata fo uh, registrar la office kono ka nyinin ka nyin tembo la fo uh, casing foye a register le foye ma register kadum case jannaɓe kela fa se register folo bon uh, 3 o'clock 16 after 3 wala ɓe taka ñin tembola uh, ñin tembola bari kes kesning aman rista woto uh, wo kammala manji ko soto ko asekeno abe kela bi na keta fanan tumando bad manji ko soto ko aseke bi kadu watu be tembo min to ten uh, bari membe kerin doron uh, men kato ke kan kawale uh, kawale uh, di molla pour mol fanan salon membe kerin yen tembola atenyin uh, banjul magistrate ko yen tembola lal bade malem uh, sheriff konte membe uh, kibaro di kala gambian talents tv uh, toyala uh, viewers Greetings once again. Earlier on in the morning, we've talked to you, we've informed you um, some of the things that are happening here, uh, right here at Banjul Now, we are still here. It is um, 16 after 3 o'clock. Uh, but yet still we didn't see anything and nothing happens earlier on we've seen some lawyers uh, that came here but then they went um, personally, I went up to the uh, headquarters. I asked the, I went up to the um, prosecutor's office to ask them um, so that I can have some information regarding the case, whether the case will proceed today or not. But then they referred me to uh, the Uh, ASP's office, that is Lamin Jai. I didn't find Lamin Jai there, but I end up calling Lamin Jai. Um, he, he said he cannot tell me the time and the venue where the court will take uh, where the proceedings will take place uh, because they are still on some uh, investigations and he cannot say anything regarding that um so this is uh, almost is 16 after or 17 after three o'clock i went inside right now to ask the registrar, the court's registrar, whether the case has been registered or not. But the registrar said the case is not registered yet, and it cannot happen uh, without it being registered. So um, what we think right now is that we didn't think the um, case will proceed today. Uh, it might, of course, but that is not certain. But as of now, this is what we have for you. Um, you are watching at uh, Gambian Talents TV, and I am Sirif Conte reporting uh, for you from Banjul at uh, Banjul Magistrate Court. Right now, I will give the mic to my colleague to talk to uh, the wall of uh, speakers. jërëjëf Sirif ah, mbokkee comme nu mu leen ko waxee woon rek ah, si njëlbel ah, fii lañ taxawoon rek si suba si daal di leen wax ne ñu ngi fi nga xamante ne moo nekk bàññi si magistrate court bi xaar ki nga xamante ne nag moo nekk Sainabou Mbye gannaaw buñ amee xibaar ne tey dina taxaw fii def li nga xamante ne moo nekk bi bu war a am diggante Sainabou mbay ak li nga xamante ne moom lañ ko tuuma waaye nag toog nañ depuis suba dégguñ dara gisuñ dara suma nit ki nga xamante ne moo nekk Sirif Konte dugg na si bépp béréb fii pour laajte xamante ne moo nekk ah, lu mu war a laajte si mbiri kees bi waaye fu mu dem ah, dinañ ko wax ne xamuñ lii wala munuñ laa wax lële dem na ba si nga xamante ne moo nekk bi kool na ko wax naa ma waaye moom mu ah, munuñ ko munuta wax dara si bi fu mu war a comme ni leen ko waxee woon rek fii si Gambian Talents TV euh, dina leen génne lépp li nga xamante ne moo nekk di happen fii si Banjul euh, mënuñ leen di wax ne nag euh, code bi du am tey waaye lu ñu mën a wax daal moo nekk ñun gisuñ ku nga xamante ne moo nekk Sainabou Mbye pour mu ñëw fi nga xamante ne moo nekk si àttekaay bi fii si Banjul di amba kooti magistrate court bi fii si biir Banjul waaye lu leen di wax rek tamit ki nga xamante ne moo nekk sirif dugg na si biir laajte ki nga xamante ne moo nekk registre bi pour laajte ko ndax kiis bi register nañ ko fii si court bi waaye mu ne register waanguñ ko kon nag ah, am nañ yaakaar ne ah, tey nag xamuñ ndax dina am wala du am waaye su amee tamit nañ ko génne fii si Gambian Talents TV ngeen daal di ko gis te it ngeen xam lan moo neka di dox fii si biir Banjul ak kees nga xamante ne moo nekk ah, bu mbay moomu la ma bàyyi leen rek ak suma naataango di Sirif Konte. waaw jërëjëf <clears throat> comme lu ñu doon wax rek def nañ ay effort yu bari xam nga si suba dañ promise woon nit ñi ne dañoo fexe nu mu fa munti demee ba ñu indil leen eh, informations regarding kees yi Sainabou Mbye bu war a happen today luñ jota xam mooy si suba moo nekkoon ne Sainabou mu ngi si biir. fa on si headquarters bi on Friday because Friday la ñëwoon si lañ ko transfer on mu ñëw fii mu fanaan fi Friday fanaan fi Saturday fanaan fi Sunday so Monday we expecting ne uh, tey uh, keesam bi dina proceed Why? waaye suba si gis nañ few people ñu ñëw among them uh, gis nañ lawyers um, ñëw nañ fii paak seen ay moto duga si biir yaga demaat si biir headquarters bi um, some of them seen after dañ mujjee duga si seen moto yi ah, ñu dem bot den demuñ fen fii lañ toog depuis suba ba time bi ñu ngi toog si biti fii ah, fii si biti fii ah, moo nekk fii si si opposite lii bi magistrate court bi pour fexe rek jox Gambians yi information bi nga xamante ne lañ soxla because foog nañ ne this case is very very important ni ñaa ni ñaa ngi bugg a ah, luy transpire fii tey ah, si case yi Sainabou bi fii whether is inside Gambia or outside ni ñaa ngi xam people are curious they want to know ah, anything that will happen here today likewise the that of Bob Cheta because um, ñu bari foofu lañ nekk société fii tey mu ngi weet ñu fi nekk sax bariwut few media outlets ñoo fi nekk amoon ñun waaye ñun ñoo fi njëkkoon a ñëw depuis si suba nekk fii ba time bi nii ah, comme nu ma ko waxoon rek fu mu nekk nii ah, time baa ngi 21 after 3 ah, o'clock almost 4 o'clock soreetut waaye si lañ toog ne because promise nañ Gambia nii ne nañ leen wax dara regarding fii lu ñoo def mooy dara xapunut waaye situation bi bu fi nekka dañoo make sure by all means ñu jox ko public bi gars yi xam exactly lan la fi happen ah, mu nekka part of that effort buñ def duga si biir am laajte registre bi mu ne waxut ñu lenen de waaye lum ñu wax exactly moo nekka case bi registre wuñ ko ba léegi mu ne ah, te case boo xamante ne registre wuñ ko foog ah, comme case balaa ñu koo registre pour mu proceed foog ñu def investigation ñu pare already da ngaa gis ne ne mun nañu ñëw fii ñu pro ñu proceed with so mbokk yi lii lañ leen amaloon ah, tey fu mu nekk nii jamono ji at Banjul Magistrate Court waaye ah, ñu ngi still am information ne kooti ah, keesi Bob Keita bi bu nekk di happen at High Court still now pareegut gaa ñu ngi si kawam ba léegi ñu nit ñu ngi fi waaye fu mu nekk nii almost foo soreetul ñu ngi leen a sant di leen gërëm Binta soo amee few words yi nga si war a yokk rek su ko defee mun nañoo close out rek waa jërëjëf Sirif ah, comme nuñ leen ko waxee woon rek jërë ngeen jëf yéen mi nga xamante yéen a ñu doon topp fii rek ah, si Banjul Magistrate Court bi pour xam naka la ah, yi nga xamante ne moo nekk bu Sainabou Mbye bi naka la nekk di demee fii si Banjul gannaaw gisuñ fi kenn nag dinañ leen asir naka la situation bi nekk di demee fii si Banjul si Magistrate Court bi ñu ngi am suñu yeneen nit tam yi nga ne comme Sirif nu mu leen ko waxee rek ñu ngi si High Court bi mun ngeen di ciun tamit Gambian Talents TV bi rek ngeen seetaan ko live and direct maa leen di sant di leen gërëm suma caméraman bi duma ko fàtte di saañang ak ki nga xamante ne moo nekk assistant bi jërë ngeen jëf ñoo leen nekk di génneel a ah, image ci baax yooyu noonu ngeen daal di ko seetaan fi si Gambian Talents TV waaw ñu ngi leen a sant di leen gërëm di leen wax ne rek jërë ngeen jëf ah, any information further information buñ jot a xam rek dañoo ah, fexe rek def suñu kéemtal lay kattan ñu jox leen ko comme noo leen ko bëggee understand seen mbokk la woon Sirif Konte ak Binta Badji jërë ngeen jëf seeni jogob koddu njaay ma jogob koddu alaaji Moustapha Njaay alaaji Ismaila Njaay baayam alaaji maam boobu Njaay baayam tubaar fakalla masha allah Ousseynou Njaay maamam biram wula jaañ ak Fatma wula jaañ lan fuloor wula jaañ yaaya ndaw mu demba seen aji bàjjen fay nag mooy yaayam mbas ndeene jigéen ak jogoy ndeene jigéen ma sàmbay ndeene jigéen a tafa man han lo lu demba sen jaay ndaw demba sen beram bu la jaay ak sey la digel bu la jaay hey suba di talal loxo nit ci ñaka jom la bokk dega so suma yaay dafa jaay buroli roli baba suma yaay mom daan kat dolem la won mom yu bar la la dem daan jaay ice tamit fi jame free fo daan xol lu fim tollu ah. xey gambia nala la wax dara diplomatic passport businessman man la ko yaay jame ñi ka jox 1998 ma lima nek nekk sama xel ak lima ma bëgg liggéey ak fuma ma tollu gambe mënu mako may dene ndaw do ko jox liggéey do ko jël employé ko way da nga create environment bo xam da dafa mëna liggéey business tigi tigi tigi da nga am fit do lo ragal way nak si njub man yaaya jàmme rek laa ragaloon moo tax dama ko dan bàyyi hel dama ko dan study comme ni yo story book nga sëriñ ñu bari ñoo woyee sëriñ lobbyiste lañ. Mm-hmm. sëriñ yi téléphone lañ. Mm-hmm. te man bëgg naa boobu taat.